maa ngi soog a wax kon ci Mansour ak Bougane pour tey même video bi ngay dégg noonu wax dëgg yàlla mosuma def vidéo pour Bougane jamais mosuma tontu Bougane jamais te duma ko mos tontu duma mos a werante ak Bougane ci àdduna jamais vidéo bi xale yi génne def ko ci TikTok bi def ko ci def ko ci YouTube bi ni Mansour a répondu Bougane nit ñi commenté ci ci télé yi daf ma jàngalaat Sénégal parce que vidéo boobu mois d' octobre laa ko def xaw ma mois de septembre moom lañ dem jëliwaat ni ma dama tontu Bougane léegi léegi te def mel dama ko xam le même jour laa woo sama benn collègue Evelyne Mandiou Ba man ko kay xool vidéo bi ñu wax dama tontu Bougane Bougane du mës a dégg lu koy naqari jóge ci man Adja xam nga la moo tax euh, ku ku du jël démb indiwaat ko ci tey doo gor ànd boo gis day am fu muy yem Bougane du ma mës a moom lu mës a dégg kàddu tontu gu jógee ci man loolu na leer ñi may seetaan képp ku gis vidéo bu ni Mansour dafa tontu Bougane waxoo dëgg musuma tontu Bougane man ragaluma su ma doon tontu Bougane ba mu wootee direct laa koy wax direct li ma koy wax. le jour boobu vous êtes senti. rien du tout Bougane mënu ma blessé. lu li tax mënu ma blessé Bougane li mu def ci man ci ngor ak teraanga mënatuma blessé. si Bougane moom mu jëkk jox oto may dawal. Bougane moo génne chèque yi bind ci 2 millions 800 ma dem màkk sans xaalisu kër gi. Bougane moo ma permettre ma am ñaari oto yu ma moomal sama bopp Bougane moo ma permettre ma tabax étage Bougane moo ma tabax mat sos kër ci société am ba soog yàlla la nag mais moo ma permettre loolu bi ma àndeek ak moom li ma Bougane jëriñ benn patron de presse dootuma ko jëriñ ci àdduna. li ma buggaan jëriñ benn patron de presse dootuma ko jëriñ ci àdduna li ma dund ak Bougane am ko ci koom-koom kaneen ko defal ci àdduna. kon moom <laughs> na mer na xët xëti na def lu ko neex moom dong la concerné waaye waaye moom waaye moom Bougane hmm. du mos a dégg lu koy metti face to face mu jóge sama gémmañ et la réaction des ku la wax ni waaw mus na dégg Mansour tontu Bougane waxul dëgg c'est la première fois Mansour wax tudd Bougane depuis ma jógee seen TV depuis moom mu woote woon direct ba léegi tey laa soog a wax lu jëm ci Bougane tey ci seen TV naka nga. Euh, ma duma ragal. bu baax <laughs> kenn yàlla nga lay nuyu. <laughs> mais la réaction de Sénégalais parce que dafa def toole. ñoom ñoo xam xam nga ñoom ñoo xam xam nga Sénégalais yi. Euh, Adja maa ngi yow bu ñu bokkoo ñetti vidéo sax ci ginnaaw suba nga ñu ni maa ngi yow am na seq. Mhm. c'est-à-dire man commentaire ébranlé wu ma leçon boobu Ahmed Aïdara moom ko jàngaloon moo ma ala man ma alaaji boo bëggee noppalu ci àdduna bul lii commentaire bul nangu ku la nettali sa saaga. il a parfaitement raison. man duma ma xool commentaire du ma xool ku du ma nangu ku ma nettali sa saaga sama saaga euh, nit ñi nag boo amee ay soppe bu nit defee lu njuumte da cee lalu mhm. mënoo fexe ba soppe yi du ñu la sotle ça c'est évident kuy sot nag lu ne ngay sote ñii ña ca commentaire ya mais encore une fois mu nekk occasion moo ma wax ak sama mbokk rakk yi nga xam ni dañu nekk ci dañuy dugg dañuy soog dugg ci métier bi te nekk ci côté digital métier bi amul fen de te ñu ngi jàngal seen bopp ay fen métier bi amul wax lu dëgg te ñoom tàmmal nañ seen bopp wax lu dëgg Adja bi tey à répondre Mansour Diop Mansour à répondre maan yi du dëgg te plus plus de cinquante chaînes YouTube ku nekk def nga sama photo def sama vidéo pour man répondre naa Bougane loolu du métier jàng leen nekk et góor nekk góor nit dafay nekk góor nit dafay jàng honnêteté lu mu amul ci yow du ma ko dama taxaw tribunal ci benn procès président tribunal yi ma lii ñuy wax yaa ko wax man leen man maa ko wax mun ma diffamation ma ne ko diffamation de ki ma fi indi mooy dama ko diffamé mais li ma wax dëgg la ci fa mu dëkk ci fa mu nekk maire ma li ma wax dëgg la moom nag comme tudd naa turam nee dama ko diffamé mais boo demee fi ma fi ma fi ma demoon moom fu mu dëkk ma dem fa def fa deux jours def fa reportage moom ci boppam xam na li mu wax dëgg la. xëy na moom moo am doole ni kenn du tudd turam c'est-à-dire mooy nit dafay gore. booy nekk internet yi di leen jàng di wax dëgg. d'accord léegi très important. alors Alaaji après nga continué liggéey ñu bëri ils s'attendaient à ce que nga démissionné mais ñu jékki-jékki euh, moins d'un mois presque deux mois ñu génne sa photo qu'est-ce qui s'est passé. ñu génne comme ñu génne sa photo. Mm-hmm. nga posé ak ku ci mel ni Birahim Touré. fii ci locaux ci nga xamante ne moom mooy leeral. ok mooy mooy li ma sànq euh, sama démissionné groupe de média dafa jotoon dafa jotoon xam nga mu jotoon groupe des médias du ma fa du fa simple employé actionnaire laa fa. groupe des médias actionnaire laa fa premier plateau bu ñu daaj bu seen TV man ak Bougane ñoo ko daaj ak Pape Dieng ak Jupiter ñun kat. premier plateau bi seen TV teg man maa ko daaj maag Bougane Jupiter Pape Diène duñ ma weddi seen TV et ma fille sama doom la. Mhm. seen TV maa fi njëkk def journal maa fi njëkk a émission maa njëkk a enregistré émission production à part wax feeñ maa njëkk ànd ak Arona ak benn caméraman bu tudd Amadou ñu dem Petersen tourné émission chauffeur bi seen TV sama doom la. su ma demee ba wax yi bëri te buggaan waxul ma dégg man waxuma buggaan dégg te bu continuer day xajam te man ma nekk action sama nee na bu jàmm amul na soriantoo am man ma bàyyi groupe de médias gi ma sos ma gënal sama diggante buggaan du yàqu di yàqu aja saa boo déggee ni diggante Mansour ak yàqu na li koy yàqu ci Bougane lay jógee lu jógee ci Mansour wallahi buñ taxawoon ci kanamu junni nit Bougane taxaw saaga ma ndey du ko fay du ma du ma du ma ko tontu fexe mukk dégg ma génne sama gémma ngi lu ñaaw jëm ci Bougane ngay dem tàggu ko waxtaan ngeen tàgguwuma ko tàgguwuma ko parce que gëj nañu déggante gëj nañu déggante tàggu alors pourquoi le group Leral. groupe Leral mais bi ñuy dem mag Birahim Touré bi ñuy dem Zik FM c'était une radio musicale bu doon def information 7 heures mooy le quart 8 heures mooy le quart parce que ñi mu woon a affronter yeneen rajo yu mag yi fi nekk ñu ñëw jéngu dóor mu nekkoon défi ci ñun moom itam buggaan jàppale ñu mais ñu courage ñu àndandoo doxal. Mhm. ba mu yëg si fi mu yëg si tey. Mhm. mais mais ku amul courage dem. groupe des médias ci fa mu tolloon jamono jooju tey nga war gën a am courage pour ñëw leeral parce que fekk nga fi rajo ak télé ak site benn ñaare bi ci des euh, àdduna ay kii la àdduna ay ay ay ay feuilleton la Adja da ngay jaar fi jaar question de choix la ñu bëri nag foogoon nañu bi moom jógee groupe des médias ci yeneen groupe laa doon dem. Mm-hmm. ñu bëri demal fii demal fii demal fii mais man nag damay kenn koo xamante mu dëgër bopp. kenn du ma wax may teg sama tànk parce que bi ma jógee RFM. Mhm. Bougane bi ma koy bi may ñëw ci moom message laa ko envoyé xam nga message loolu mooy demande d'emploi désespéré ñi ma yaakaaroon jamono jooju muy canal info ak 2STV dama dem ba egg fa yóbbu sama demande Bougane message laa ko envoyé loolu mooy demande d'emploi désespéré et pourtant foofu la sama wërsëg mujj nekk noonu lay demee ni ñu taale woon groupe des médias Adja noonu la ñuy taale leeral média et puis sax nag Adja boo bëggee dégg-dëgg yan na leeral média sax nag mu mujj nekk suñu kër gu mujj sax ci média nag xam nga man li ma sama papa waxoon mhm. ni ma biir na ma ni Diop ndax toolu dugal ci wax mhm. waaye doo nit kuy wax billahi mon père avait raison man gëm naa ni destin rek mooy tax nit di am métier mais du choix wu boppam man du nitu rajo Adja man duma def lu ñaaw naqari naa deret bañ naa yàq der bañ naa lu ñaaw bañ naa jëw bañ naa sakk jëfu démb bëgguma waññi wante waññi wante ay weex bëgg naa nit ku am qualité te yooyu dafa commencé day ci milieu bi. malheureusement. malheureusement moo tax ma ni man. Mhm. yal na ma yàlla dimbali fii nekk sama kër gu mujj. sax nag ma bàyyi média. amiin nekk ci mbay meek yeneen yi.